ak région de Louga pôle bi Cheikh Thioro nee na léegi mooy département yu yu gën a tardé wala yu gën a ndóol d'accord ma ak sëñ Cheikh nag ndax dafa warul Sénégal ni ma ko wëree waaye su demoon Medina Yoro Fula wala mu dem Saraya wala mu dem Salameta wala yeneen ak yeneen dina xam ni département bi du ci département yu gën a ndóol waaye département la boo xam ne des na gannaaw li fi waroon amu fi ak ni fi waroon amee amewu ko noonu ba tax déedéet <laughs> maag sëñ Cheikh la loolu moom maag moom <laughs> loolu maag sama sëriñ la <coughs> taaliba bi gàgganti sëriñam laa rek dama xaw a tëradi waaye boo natee xam nga waa équipe waa groupe tàng xol il faut ñuy macc pass yi ndax seen xol yi di sedd tuuti donc pôle bi pôle bi jamono ji tembe boo jëlee ñaari région yi li statistiques yi joxe mooy trois millions deux cent mille habitants ñoo fi nekk waaye code dañoo def document boo xam ne dañu ne gouverner c'est prévoir ñu def projection ci vingt cinq ans moo tax ñu ne deux mille cinquante pôle bi lan lay méngool deux mille cinquante pôle bi dina doon sept million deux cent mille habitants mooy doon pôle daanaka bu gën a peuplé ci Sénégal ndax pôle pôle centre rek moo koy ëpp waaye pôle centre bu leen fàtte ni ñetti région la te pôle bi ñaari région la donc boo ko nattee ci loolu mun naa ne mooy pôle bi ëpp habitant ci senegal mooy pôle bi ñu ne léegi boo ko gam-gamlee ak pôle Dakar pôle Dakar bi nga xam ne tey 4 millions d'habitants la moom en cinquante 6 million d'habitants lay doon kon progression bi am fii en termes de démographie amul foofu ñaareel bi ñu ne tey richesse bi nekk ci pool bi mooy alal gi meññ fii ci pool bi buñ ko séddale waa pool bi ñaata la ñu ne buñ ko séddale woon kenn ku nekk quatre cent mille ngay am ñun ñu ne fii ak deux cinquante bëgg nañ ko multiplier par deux et demi ba nga xam ne dina doon minimum un million par habitant ci pool bi ñu ne nag liggéey xaw naa néew ci pôle bi ndax taux demplois bi liggéey bi 18 pour cent la boo jëlee téeméer yu ne daanaka fukk ak juróom fukk ak ñett ñoo ciy yëngatu ñoo ci am liggéey loolu néew na lool te du ngeen ma weddi ndax soo waxee dañ la naan fii Jakarta moo fi am wala essayé jaayantu waaye koom-koom bi xaw naa xaw naa néew ak sareet yi bokk kon pôle bii ci jamono jooju boo nattee ci wàllu électrification mooy lamp yi ak leeral gi li am ci pôle bi néew na lool parce que 79 pour cent ñoo am courant boo ko natteeg Dakar bi am 98 pour cent virgule 7 kon marge bi rëy na noonu ci ndox mi ne nañ 50 pour cent ci ñi dëkk ci pôle bi ñooy am ndox bu jóge ci robinet loolu néew na boo ko natteeg ndakaaru nga xam ne mi ngi à 74 pour cent enfin mënoon naa lim yu bëri waaye boo jëlee ci wàllu santé li fi nekk ci personnel santé mi ngi représenté 8 pour cent ci ñuy faj ci Sénégal nga ga natt koog ndakaaru bi nga xam ne moo am 36 pour cent yi kon pôle bi néewle na ci paj mi ak lépp lu jege paj mi moo tax ñun bi ñu liggéeyee lool bi ñu ko xoolee dañ ne pôle bi am na ay capacité yu am solo waaye lan lañ def ci capacité bu ci njëkk mooy mbay mi ku wax fii wax mbayu gerte mbayu dugub mbayu njebbe parce que fii dafa bokk ci bassin arachidier suuf si doon li ñuy wax la sol joor mu wuteeg suufu Casamance ba nga xam ne c'est du sol argileux moo tax tubaab bi defoon ko fu ñuy bayee gerte waaye est-ce que baykatu gerte yi ñi ngi gis seen bopp ci bay bi est-ce que ñi ngi gis seen bopp ci am matériel bu doy am jiw bu doy am engrais bu doy waaye bu ñu bayee ba pare ñu jënd ko ci prix bu baax loolu ren lañ ci def ñun te muy rek lancement muy premier année bi gis ngeen li ci ministre de l'agriculture liggéey ba presque ménage bu nekk jot na te teel na ko jot lu jot lu mat sëkk ci gerte ak ci engrais ak yeneen yu demee noonu mbay mi nee nañ leen fan yii dinañu fixer prix gerte gi waaye moo wax leen ni bu dee gerte bi ñu ngi ko doon jëndee juróom at yuy passé ren dinañ ko jëndee fukk wala lu ko ëpp loolu lu ñu décidé la ba pare ci subvention yi ñuy dugal ak yeneen waaye mbay moomu il faut mu ànd ak industrie ndax di ba utiliser ko la ca des ñu génne ko réew mi loolu bokk na ci politique industrielle bi ñu bëgg a def fii dañu ne fii dañu bëgg mu doon pôle industriel premier projet bi nga xam ne moom la ñu lancé ci industrie Sénégal dinañu ñëw fii mois de décembre poser la première pierre mooy li ñu war a monter fii ci ay oto muy camion yi mais muy aussi matériel de défense muy matériel militaire fii lañ ko tànn fii ci département Mbacké ne fii lañ koy teg te mu war a jur minimum cinquante mille emplois kon président Diomaye su leen ne Mbàkke yitteem la ngeen war koo gëm léegi docteur Cheikh Tidiane Dieye wax na ci ndox mi mais loolu yàgg nañ koo joytu fii fii ci mandat bi balaa 2029 dinañu andi ndox bu baax ndox bu ñuy naan partout au Sénégal mu ñëw fii ba Touba Mbacké Diourbel Mbacké et cetera ba ñëpp am ndox bu baax yéen xam ngeen ni problème mu Touba noo seulement ndox mi ñu naan baaxul mais réseau bi 40 pour cent du réseau dafa nëpp ba nga xam ne ndox mi ciy jaar li ciy li ciy tuuru moo ëpp li ciy egg ci nit ñi. loolu yëpp nag programme bi docteur Cheikh Tidiane Dieye jël xaalis bu bëri la ndax su ma juumul gën saa gàtt jëlee ndox mi Lac de Guiers andi ko boppi dépassé na 600 milliards 600 milliards yoo xam ne ci lañ koy def dégg ngeen nag ay nit naan ci ban condition la docteur Cheikh Tidiane Dièye joxe entreprise bi gagné et cetera xam nga loolu ay waxu loolu yéen ñi dëkk fii am problème ndox te nee naa suñu nguur ñun lu ñuy def rek ci transparence lay doon mais est-ce que d'accord ngeen ñu toog ay ay weeri weer lii ñu def nii études yi rek waroon na jël deux ans études yi ci six mois sept mois ñu def ko ba signer contrat bi est-ce que di ngeen d'accord ay nit naan leen transparence ak léegi li ñu toogaat ay deux ans trois ans quatre mu leer ni d'ici deux mille trente cinq ndox du ñëw fii ñeneen ñi mooy ñi nga xam ne ñi ngi wër di essayer yàq xelu nit ñi ay lobbyeur lañu lobby kenn ku ne ci ñoom demoon na ut ay partenaire am nee na ñëw bugguñu ko imposer bëgg ci am ay commission yoo xam ne ay milliards yu dugg ci poosam la loolu jeex na ci senegal ñu ngi gërëm sëñ Muntaxa parce que bañ fa yebalee ndaw ñi man mii dem naa gis ko waxtaan ak moom wax ko li ñu fas yéene def lim ñu wax mooy moom ci boppam ab géntam bu mu géntoon moom la ñu fas yéene réaliser nii daat ciy def ay ñaan te dina yegg bu soobee yàlla assainissement bi duma ci dellu si Cheikh Tidiane Dieye wax na ko <coughs> waaye wax nañ leen aussi li jëm ci tourisme religieux tourisme religieux fii ci Touba am na benn étude boo xam ne Moubarak loo def na ko li mu wane mooy màggalu 2023 lu mat 6 millions de personnes daje nañ fi waa 6 millions de personnes yooyu dañuy bàyyi rek ñu ñëw def seen màggal dellu wala mën nañu fexe ba màggal gi ànd ak koom-koom ànd na sax ak koom-koom ba noppi waaye nañu fàttaliku même yàlla ci alquran bi muy wax aji màkka dafa ne dem leen ngeen def faratay bu ngeen paree na ngeen def seen commerce ay euh, jaamu yàlla mën na ànd ak koom-koom gu bëri waaye fii Touba ñaata su 6 million de personnes dajee fii ñaata gàtt lañu fi rendi der googu xam ngeen ni day yàqu der gi ñu fiy def yëpp après dañ koy sànni ji moo tax filière peau bi ñu wax nga xam ne der gi ak meew gi ak lépp lu jëm ci jur gi ñu fas yéene ko def fële ci daara jolof ba nga xam ne suñu cordonniers yii soo demee ngaay tey romb naa fa cordonniers yi dañu wax ni ñoom pour ñu am der gi dañuy sonn léeg buñ ko amee dañ koy yónni ba itali wala Espagne ñu traité ko mu doog a ñëw loolu léegi mu jeex Sénégal ndax agropole bi ñu bëgg a def foofu lépp luy der dinañ ko traité fii mu ne dellu ci cordonnier yi ci njëg bu yomba yomba yomb ba nga xam ne dàll yi ñu ciy defar ceinture yi ñu ciy defar sag yi ñu ciy defar dina mun a concurrencer lay jóge Chine wala lay jóge France wala lay jóge Allemagne ak feneen ak feneen bare gi ci pôle bi su ma waxee tourisme religieux mooy am na lu ñu jot a def Touba waaye ñun bëgg nañu def di fois plus ndax war nañoo am fii ay hôtel yu moderne bi ma demee Kolda dama fa waxtaan ci lu jëm ci euh, Madina Gounass parce que foyer religieux yi bëri na ci Sénégal te bu nekk am am na xew yu mu moom yoo xam ne ay nit dina ñëw mais ñu jàpp ni ñay jóge chaque jour ndakaaru ne maa ngi dem ziyaare ji sama sëriñ Touba kenn xamul nu mu toll ku fi ñëw kenn kër diine kër euh, kër kilifa goo dem di nga gis ay daayira yu ñëw seet si leen waaye léeg-léeg dañuy obligé gaawantu dellu parce que dañuy am problème fu ñu dal boo demee tey Makka wala Madina hôtel yi gën a bakkane ci àdduna fokk nga koy fekk noonu la amee ca Rome loolu lañ ne bëgg nañu am fii <coughs> <coughs> ngeen jéggal ma nag mais tey tey dafa mel ni sëqat si dafa gën a rakkaaju xam naa ni waa boor bële comme ñoom xar nga fuufa la ñu gëm xam naa ni ñoo yëngal butéel yi <laughs> waaye mënuñu dara ci ñun kon tourisme religieux boobu lañ ci wax mooy du état mooy ñëw di tabax état mun na defar kër sañ Touba ba mu baax waaye état day day encourager waa secteur privé ñoom seen bopp ñu créer leen cadre yi ñu leen war a créer gannaaw borom dëkk bi bu joxee ndigalam ñu ñëw investir fi tabax fi ay bërëb yoo xam ne ku ñëw mën nga ne maa ngi dal foofu bu julli jotee ma dem julli ji ca bërëb bu tedd ba su ma bëggee ziyaara ji ma dem ziyaara ji ñëw toog mu am ay restaurant yu moderne yoo xam ne soxla woo dem taxaw ci kër waaye mën nga dem foofu dem dem jëfandikoo loolu du créer koom-koom ci ci dëkk bi du créer emploi suqali transport bi loolu la ñuy wax tourisme religieux ñoom ñiy wër naan gars yi nee nañ dañuy def ay bërëb yoo xam ne caaxaankat yi fa la ñuy ñëw kenn mosuleen wax loolu bu doon loolu Makka du am turi hôtel Medina du ko am <coughs> kon tourisme religieux bi bokk na ci programme yi gën a am solo waaye mbokk yi pôle bi ñu nekk am na phosphate phosphate baa ngi fii Baba garage phosphate baa ngi fii phosphate baa ngi fii ci Darou Moussi phosphate baa ngi fii ci dëkk bi waaye bu leen fàtte ni pôle bi dafa dem ba Louga dem ba Lumpul ku wax foofu wax zircon bi nga xam ne ay nit dañ ci am ay milliards yu dul jeex te senegal gus si boppam moo tax ñu ne nag pôle industriel bi nga xam ne phosphate bi ñu fi am du luy génn réew mi de loolu jeex na ci réew mi lañ doon génnee or bi di ko génnee euh, phosphate bi di ko génnee jën gi ak yeneen ak yeneen loolu jeex na ci réew mi la ñuy produire fii lañu bëgg ñu def ay unité industrielle ñu koy transformer fii ci dëkk bi def ko acide phosphorique def ko engrais parce que wax mbay wax engrais lañ ci soxla ñu jël ko la ca des nag ñu dog koo jaay parce que sooy jaay phosphate brut bi bu dee 1000 nga ciy am boo ko jaayee noonu boo ko transformé fi def ko anglais 5000 nga ciy am loolu la ñuy wax valeur ajoutée cuune yi fi nekkoon xaw nañoo rey Sénégal kenn xamul lii lu mu doon Maroc de phosphate moo ko développé Maroc ñun ñu am phosphate ni ñoom waaye teg ci pétrole teg ci gaz ak yeneen ak yeneen te ñoom amuñu loolu. mbokk yi Sénégal mun nañ ko développer ci lu gaaw waaye lenn rek la raaj mooy askan wi takk seen ndigg topp ci gannaaw président Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement am parce que ñi yàq réew mi ba fii ñooy waraat bëgg a nërmeel xelu nit ñi naan leen def nañu 6 mois ana résultat bi 6 mois bi résultat am na fii inondation yu am ren niñ ko gérer rek defe naa preuve la ci te programme assainissement bi ñu am docteur Cheikh Tidiane wax na ci fii ci Touba Mbacké la ca njëkk mooy lépp lu wër jumaa ji d'ici quelque temps du ngeen gis ndox bu fa taxawaat bu soobee yàlla ñu doog ci teg yeneen yi bassin bi ñu fi bëgg a def bassin sur 60 hectares nga xam ne ndox mi yëpp dañ koy yóbbu foofu bu nawet bi jeexee ñu mën koo jëfandikoo di def maraîchage au ñuy dem jéggaani soble beeg Euh, carottes yeeg ñoom seen feneen mën nañ ko def fii aux alentours loolu mu ngi ci programme bi Cheikh Tidiane Dièye wax li daf cee duggul ci détails yi waa ñoom pendant 60 ans fan la ñu nekkoon lan moo tee ñu def lii ñuy wax nii kon pôle industriel bi ñu wax fii agro agropole bi ñu wax fii ci càmm gi poste bi maa maa ngi ci loog lu bari na seen xel dal su ma waxee nag waxu jub jubal jubbanti nañ ko bëggee def feneen ak feneen ci senegal parce que développement day maase ku leen gëmloo ni réew gox gi mun na développé geneen gox gi sous développé da leen nax boo demoon tey États-Unis Détroit wala nga dem Philadelphie wala nga dem New York foo dem rek ne fii moo gën a développé boo demee France noonu waaye boo ñëwee fii foo dem ne fii moo gën a sous-développé développement day maase moo tax pôles yi ñu def ko huit pôles yoo xam ne benn bu nekk lañ fa bëgg a def buñ ko defee ña nekk foofu mooy ne Casamance ñene Matam ñene Ndar ñene fii ñene Ndakaaru ñoom ñëpp dañuy bokk jógandoo bu ko defee kenn ku ne am sañ-sañu toog fi nga dëkk bañ a dem ñun ñëpp ñu dem tàncaloo fële Dakar ci ay location yoo xam ne chambre salo nga fay am lii mooy gis-gis ci développement est-ce que pare ngeen pour gunge ñu ci liggéey bi pare ngeen pour liggéey ci lii nag buñ ko defee day ànd ak ay infrastructure moo tax corridor bi nga xam ne autorite bi war a jóge maatam ñëw ba taqale ak autoroute Ila Touba bi waaye mun a am ay ramification rans dool yi ak feneen ak feneen mi nga xam ne mooy secteur de production yi bokk na ci li nga xam ne mooy lënkale pôle nord bi pôle nord est bi ak pôle bii train bi doog a ñëw nag ndax fii ku fi wax wax train nag waaye saboté nañ ko ba lu yàlla wax xam doy na kon infrastructure éducation yi doog ci tegu ndax fii de tabax nañu fi université te waa dëkk bee ko tabax laaju ñu kenn dërëmam loolu ñu tabax noonu wóor na ma bu doon état bee ko tabax bu ñu la nee quinze mille bu ñu la nee fii quinze milliards lañ ci def bu doon état moo ko tabaxal boppam ñu ne la cent cinquante milliards lañ ca def moo tax royukaay lañu ci dañuy liggéeyee fii nañ ko defee ci Masaalikul Jinaan nañ ko defee ci jumaat yoon niñ ko defee feneen ak feneen la ñu war a roy ci diine dafa bëri te suñu mbokk katolik yi noonu lañ koy defee di tabax seen i mbir di def seen i di defar ay école defar ay teen di def leneen ak leneen loolu nag mooy li président Bassirou waxoon ci jub ak jubal ak jubbanti jamono jooju la ñu toll soxla nañ leen waxuñu leen ngeen ne suñu gannaaw dañoo bëgg ñu nekk ak même alignement beeg yéen ñuy puusandoo peuple bu mus soppi rek dafa fekk mu am une génération de leaders politique boo xam ne bëgg nañu réew mi jub nañu am nañu xam-xam waaye ñu ànd si ak une une population boo xam ne am nañu farlu te réew mi jaral na leen élection bi ñuy dem nag ci yooyu la bokk man awma sikki sàkk ci résultat bi fii awma sikki sàkk ni bu soobee yàlla juróomi député yi fi nekk ak li nga xam ne moole ci liste bi ñoom Cheikh Baara Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen awma sikki sàkk ni dina jàll waaye yéen rek mun ngeen joxaat yeneen ñeenti député wala juróomi député ci liste nationale bi li koy andi mooy bu njëkk bi mooy ngeen génn massivement massivement bu njëkk bi bu njëkk bi dañoo gis ni taux de participation yi ci élection législative yi dafay faral di gën a néew taux de participation élection présidentielle dama bëgg bu dee 65 pour cent ñoo génnoon pour voter ji cette fois-ci fexe leen ba nu mu tuuti tuuti pour cent génn voter ji 80 pour cent ci liste bi génn voter waaye ci 80 pour cent yooyu soo leen jëlee ñoom yéen waa Mbacké ñaata ngeen ñuy jox ñaata ngeen di jox suñu jàmbar ji di sëñ Cheikh Thioro Mbacké loolu mooy défi bi bu ngeen ko defee ba ñu am majorité bu mat sëkk assemblée di ngeen xam lan la assemblée nationale di jëriñ di ngeen xam pa lan la assemblée nationale di jëriñ parce que même président Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement bi ma jiite même ñoom assemblée nationale da leen saytu parce que loolu mooy rërëm waxuma laa nag koo xam ne dénkoon nañ la nga salfaañe jalgati alalu réew mi kon lii mooy challenge bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant suñu xel sa dina ci yéen trop asalaamualeykum wa rahmatulah wa barakaatu.